alaikum, fidèle internet TV ñu ngi leen di nuyu dalal ay sénégalais sur suñu plateau bokku ci euh, Colette Babène Colette ñu ngi leen nuyu. wa ma ngi di fay di leen jaajeufal di leen mhm. merci beaucoup le fait que nga dalal ñu à sa cœur mais bëggoon exactement mhm. Colette baben. bokku nga yi arrêté mois de juin est-ce que mën nga expliquer exactement ces conditions d'arrestation waaw asalaamaaleykum euh, di delluwaat di rafetluwaat rek seen taxawaay fii fini. di wax métit bi tollu na fo xamantene tay tey talalon micro ma wax ndax arrestation bi metti na té timit lu ko waral moy daño gunge ci suñu leader muy Ousmane Sonko ndax daño bokkoon ci caravane de la liberté jugee Ziguinchor ñoo ngi jugee Ziguinchor le 26 mais jaar Kolda bi ñu jëmee ba Kolda vu que situation bi ñu jànkonteel Kolda métti woon na trop ah, pro nañu su ma sañoon ngeen dellu Ziguinchor ñu ne ko non non yow yaa ñu tax a jug comme soit dañuy fanaan Kolda bu ñu paree soog a rejoindre dakaar te noonu lañ ko defee dañoo fanaan Dakar eh, astafurla euh, Kolda ba le 28 euh, euh, bi ci lañ jël bis rejoindre euh, ñëw dakaar bi ñëwee dakaar dem Rufisque fa lañ dal te euh, ñëw Dakar bi nekkul dañoo ñëw c'est juste pour yàq wala dañoo ñëw pour tooñ non non c'est juste dañoo euh, ñun dañoo ne suñu leader fu mu nekk rek war nañ ko fa fekk. Mm-hmm. looloo tax ñun ñu ñëw dakaar mais vu ko ñoom buñ ñu jàppee dañ ñoo jaay doole. fan la ñu leen jàppee dañu leen si manifestation bi wala fan la ñu leen fekk exactement ba jàppale. jàpp ñu ci manifestation bi ndax ci biir kër la ñu fekk bu fekkoon ci manifestation bi man nee naa boobaa dinaa ne ah comme peut-être man maa wàcc yoon mais yaakaar naa ku ñu fekk sa biir kër jël la yóbbu la dem tëj la loolu jaay doole la dañ dañoo jaay doole ndax man biñ ma jàppee dañ ma ne xamal mu carrément Casamance nga jugee. ñëw ànd ak sa leader da ngeen ñëw pour déloger Macky Sall ma ne leen non ñëw ma pour déloger Macky Sall parce que man de fait que mënu ma euh, mënu ma jaayante ak yéen doole aw ma kattan bi may jaayante ak yéen doole comme man tuuti naa trop pour dem déloger Macky Sall c'est juste dama gunge si sama leader ñëw ñu ne ma lan moo la indi dakaar ma ne leen bu fekkee comme ñëw dakaar deli la man bëgg naa tamit ngeen xamal ma ko ñu ne ma noo c'est juste li seen leader wax looloo tax ma ne ne mais suñu leader bu ko waxee tamit yaakaar naa ne kii wax kooku ngeen war a euh, jàkkaarloo mais pas ñun ñi nga xamante ne dañoo ñëw ànd ak moom waaw. alors ñu fekk leen si benn kër nga wax. léegi nag ñaata ngeen woon ak bu ñu leen arrêté fan la ñu leen yóbbu. waaw euh, ñun euh, man man mi en tant que jigéen ñu ngi ma fekk si benn patriote Abdou Aziz nga xam ne moom it ñëw woon na Casamance ñoo seet suñu bi muy ñibbisi. ñu ànd ak moom ñun ñoo ñëwoon door te bi ñu ñëwee man mi nga xam ne man maay jigéen ma dal seen kër ñoom góor ñi ñu jël benn appartement appartement boobu nag lañ ñëw fekk ñoom xale yu góor yi te fekk ñoom yàlla dafa def sax ñoom commencé woon nañ sax doon liggéey doon topp benn élément dem ci gaal gi di jëm jaayi jën di am ñoom lu ñuy lekk ci loolu lañ doon kii mais xam nga ni fekkoon ñoom dañoo ñëw pour xeex comme loolu noonu duñ ko def mais ñoom dañ doon jaay jën man maa ngi woon ci kër ñoom Abdou Aziz en attendant que suñu lider nekk ci jàmm bis bi ñuy jàpp ñu ngi ñuy jàpp euh, le 14 le juin lañ ma fekk ci kër gi. ki ma woo téléphone daf ma woo xamal ma ne Ami Collé ma ne ko naa mu ne ma Ousmane Sonko mu ne naa leen yóndee seen paas ngeen ñibbisi man ci laa ne ah kii li muy wax du dëgg ma coupé sama téléphone téléchargé VPN bi ñu toog 21 heures mu woo mu ne ma ami maa ngi sur le terrain mais est-ce que doo envoyé sa numéro WhatsApp ñi gën a jokkoo ma ne ko amul problème si laa ko envoyé sama numéro WhatsApp ñuy continuer di con euh, conversation yi di continuer mu ne ma mais fi ma nekk nii man xaw ma Rufisque est-ce que mun nga ma boole kenn mu tegtal ma ma ne ko fii de xaw ma fi kenn xanaa Abdou Aziz si laa ko jox Abdou Aziz Abdou Aziz mu dégganteeg moom après ñu continuer di converse seen suñu conversation mu ne ma ami seen xale góor yi lan la ñu soxla effectivement ma ne ko fii ñu dara mu ne est-ce que du jaar kolobaan jëndal leen ay yére yi ngeen di sol ma ne ko non ñun c'est boo ñu jëndal ravitaillement bi nga xamante ne moom la ñuy ndékkee muy café meew yooyu noonu loolu la ñu soxla parce que dañoo bëgg a retourner mu ne ma ah mu ne waa baax ma ne ko ak man valise bi nga xamante dinaa ci def sama yére pour ñu ñibbi mu ne ma amul problème 21 heures 22 heures si la si la photo embouteillage bi ne ma fi mu toll dafa am embouteillage parce que dafa amoon benn soog ma ne ah mane ne comme kii mu ngi ñëw sur le terrain ba vingt deux h euh, mu ne ma ami maa ngi ni accident fi ñu ma wax fi ngeen ma wax mais est-ce que pour ñëw ci gàlle bi day difficile si man te yoon dafa compliquer boole mag ku ku may ñëw jël si ci laa ko jox Abdou Aziz jël sama téléphone jox ko Abdou Aziz ma ne ko Abdou Aziz wuyul kii demoon nga dem jël ko accident. Abdou Aziz na ma kon comme balancé ko sama numéro ma dem jëli ko bi Abdou Aziz demee nag comme ndeke effectivement ñoom ñoo doon def le muy brigade de recherche bu Kër Massar ci lañ jàpp Abdou Aziz après ñun ñu toog cinq minutes gisuñu Abdou Aziz ma woo Abdou Aziz bi ma ko wooyee décroché wul ma woowaat ko décroché wul ba finalement peut-être ñoom ñoo ko ne décroché Abdou Abdou Aziz ne ma maa ngi ñëw ndek Abdou bi muy dem nag dafa ànd ak benn frère kii doomu frère kooku mineur la bi ñu demee après ci la kooku mag moo ànd seeg policier ba ci kër gi bi ñu ñëwee fekk ma sur sur le terrasse maa ngi defar sama reer sa di reer ni ma doon defaree reer ma damaa gis ni ñu débarqué ci kaw rek daal di poñe sama ginnaaw bi rek ne kii mooy Ami Collé commencé dóor ma ne waaw mais grand lii la bu may pare wax rek kenn ki dóor comprendre ma affaire yi jëmee ma kaw ñu naan ma ani ki nga doon waxal ma ne leen ki ma doon waxal kan ñu commencé di gën a dóor ma ne leen mais mënu leen an di enchaîner di ma dóor alors que yeneen mooy poser question ngeen bëgg a ma répondre en même temps ki ngeen di dóor timi da ngeen may da koy may battement noonu lañ ma ne ani say bagage ani fi ngay fanaan te kër jàmbur la moo wàcc ne leen fii laay fanaan ñu jàpp kër gi jaxasee bagage famille bi doo comprendre ma ne leen mais li ngeen di seet ñu ne ma tëjël sa gémmiñ gi lañ la laaj ma ne leen ah comme c'est bon noonu laa noppee parce que dama fóotoon sama yére maa ngi ko weeroon sax wowul ma ne leen mun ngeen ma may ma weeri sama yére dugal ko si saak bi commandant bi ci boppam ne ma yow doo fi toog man may ki lay delloo Dakar ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko pour nga delloo ma Dakar ma ne ko mu ne ma euh, ma dama lay delloo Ziguinchor ma ne ko ak ah comme baax na noonu laa wéeree samay yére ma ne leen comme may leen jël samay garab parce que dama asthmatique barki démb laa jugee hôpital Youssou Mbargane mm. ma ne dañ maa hospitalisé woon foofu noonu mais nag ma jël samay garab yóbbaale ko ñu ne ma waaw effectivement ñu may ma ma jël ranger samay bagage yóbbu bi ma demee gis naa cinq pick-up trois quatre quatre ak benn clando si benn ñett bi ma leen gisee sama dama tiit ma ne waa comme ñii est-ce que duñu ay nervi comme nervi yi ñuy wax peut-être ndax tiit naa ci lañ ma dugal ci clando bi ñoom ñu yéeg seen oto ñaari gaa kii ma ba ma leen di poser question ma ne mais grand fu ñuy dem mu ne ma non si brigade bi ma ne ah comme baax na bi ñu demee nag ñu yóbbu ñu si beneen camp wàccee ñu foofu daal di ñu manote changé ñu beneen oto ñu soog ñu yóbbu brigade de recherche bi ñu fa àggee nag si laa gis. man brigade de Kër Massar brigade de recherche bu Kër Massar lañ ñu yóbbu biñ fa àggee nag ci laa gis suñu xale góor yi niñ leen dóoree ñoom it dóor nañ leen gaañ leen gis deret bi mais taxul tamit ñu meeñu euh, jàmm parce que ñëw rek. ñi ne ma Ami Collé ñëwal ma dugg ci bureau bi ñi di ma enquête yéen yéen a ñëw fi bu def salle boulot ma ne ko ban salle bulo mu ne ma si yen da ngeen yaakaane li ngeen nekké yéen ñun xamuñu ko ni def ba retrouver len di xamu len ko mun ñun mëno len ñu recc ma ne ko mais ban salle bulo bu fekkee da ngeen am ay preuve ci li ngeen di wax à la rigueur mais ñun fekkoo leen ñi ak dara te bu fekkee da ngeen am preuve ngeen woon ñu preuve yi dinañu avouer carrément ni lii lañ def mu ne ma yéen da ngeen nekkoon sur manifestation ma leen manifestation ñun ñu ne ma waaw ma leen mais wane leen provi yi ñu ne ma bu ñu fontoo amul benn preuve bu ñu lay woon mu ne yéen a nekkoon bunti kër Sonko Ziguinchor yéen a nekkoon foofu di def lu leen neex ba beneen beneen chef bi di wax ne waaw wax wak wax yi salte daal. naan yeneen nekkoon ci bunti sonk Sonko en face si cimetière bi foofu di fa def yëfi saay saay yooyu noonu ma ne ko mais li ngay wax loolu dafa ñaaw mu naan ma yow yaa yow yaa may xamuloo li may wax dafa ñaaw wala ñaawul daal di jaar fu ñaaw kay saaga ma ma daal di noppi effectivement lan moo la fi indi ma ne ko li ma fi indi Dakar mu ne waaw ma ne ko man li mu gën a tax a ñëw c'est parce que pour defar sama carte d'identité rek mu jug rek mbéj ma daal di may pes ne ma yow doo nangam taan day bay fen yow Ziguinchor bi nga nekk amul fi ñuy defalee carte d'identité ma ne ko mais aw ma droit ñoo defalee sama carte d'identité Dakar mu ne ma lool bu ko répété yow da nga indiscipline da nga réew mais dinañ la woon ñun ñoo la gën a réew ma ne ko ah mu ne ma waa baax ma noppi mu commencé di ma poser ay question ne ma damaa bëgg échange ñi def échange nga wax ma affaire yi fan la nekk ma ne ko affaire yan mu ne ma eh yaa gën a xam li may wax ma ne ko dama man da ngay jaar ci wax ji ma it ma mën a répondre su ma xàmmee ma wax la mu ne ma cocktail yi su ma damaa bëgg nga wax ma fu ngeen ko defaree ma ne ko non loolu dama damay dégg ñu koy wax mais xaw ma fekkee yow xam nga ñu koy defar euh, dama lay ñaan rek nga dem xool ñooñu mais pas ñun fekkee dañ ñun ñoo koy defar tamit wëral say preuve ba nga am ko mais fekk amoo preuve amoo leen droit ngeen dóor ñu mu ne ma yéen amicale yéen ñun dañ leen yàgg a suivre depuis Ziguinchor mu ne mu oto bi ngeen jël caravane bi yëpp ñun ñu ngi nekkoon seen ginnaaw ba mu xamal ma ne yow yaa bokkoon ak xale yu góor yi ci benn oto ci laane ne comme ñii dañ doon suivre mais mi booy suivre nit ki yaakaar naa ne amoo ci moom preuve gisoo ko muy yàq topp leader am jugee Ziguinchor ñëw ba Dakar nga jàpp nit ki di ko dóor jaay ko doole ci ay jeunes yoo xamante ne wa dëgg fa yàlla ëllëg. dinañ njëriñ askan bi man yaakaar naa ne loolu doy waar la ci suñu Sénégal bi ñu nekk